allo mbokk yi man de maa jaaxle moo tax ma ne ma dikk fii wax vidéo bu ndaw bi ma leen di wax ne Gambia seen mbokk yëpp xool leen ngeen wax leen ne nañ moytu nit ñoo nga xam ne suñ la joxee loxo mbala ñu wax ak yow mbala ñu xam dara lu ñuy def ak yow rek ngay tàggoog sa sago ñu jël li nga xam ne sàcc ko nit ñooñu de yàgg naa koo dégg duma koy gëm waaye dëgg la su ma doomi mag démb fañ ko sàcc ñaari mobile am nit ñooñ de mel ni ay booro boro wala yu toorooro wala yu kenn xamul ñu dee ñoo Gambie noonu def dégg naa léegi ñu nga bëri Gambia fees fa del man lii gàcce gi ma si jëlee sa foofu ndax suma dooy mag bii man maa ko yónni pour mu dem vidéo ma pour dafa am xale yoo xam ne ah, compagnie bu may liggéeyal ah, non profit charity compagnie bu may liggéeyal nii Calls from Africa dama bëgg ñu sponsor xale yooyu pour ñu dem school léegi nag ma yónni ko pour mu dem vidéo ma xale yooyu noonu seen yaay yi ak xale yi pour gars yi def vidéo wax seen tur yi xale yi ak ñaata la xale yi xam daal wax ne daal dañ bëgg ñu sponsor xale yi muy dem jóge fa mu dëkk dem dem bay ma a gis kër gi fi muy vidéo xale yi rek tasse uh, ay góor muy góor ñooñ xaw ma ñu ne ñaar lañ xaw ma ñett xaw ma nag ay kanoor dinaa ko laajtaar story bi moom xam xamul ma bàyyi bu may waxee moom fi ne bàyyi la réer na waaye dinaa laajte suma mag bi mu demee xaw ma ndax ñooñ dañ ko xoo jox ko loxo xaw ma waaye daal ñooñ dañ ko xoo daal according to the story daal mel ni ku koy laaj dara daal di jëm wax ak moom daal after that si la tàggoog sagoom xamatul lu muy def xaw ma naan dafañ ko jox loxo dégg naa ñu ne suñ la joxee loxo rek dee tàggoo sa sago something like that mu dem daal rotal mobile bi si sens si la nekk daal rotal mobile am bi moom ci for ba mu ko rotalee ñooñu for ko xam na ko xam ne mu ne gis na leen ñuy for mobile waaye foogoon ne seen mobile la. bañ ko foree mu tiit ñëw ñëw war a vidéo ñooñu noonu gis ne xamewut mobile mu daw di uti mobile du xàbb beneen mobile pour call ba mu xàbbee sama mobile rakk bi pour call mobile bi mobile boobu xiir rot. mu daw ba muy ñëw fi fi fi mobile am bi rotee tasee ak ñooñ di leen laaj sama mobile bi ndax gisu leen ko ñooñu ne ko di déedéet gisuñ ko muy wax ak ñoom xaw ma lu xew daal waaye mobile bu wax Ida mobile am boobu mobile rakk bi tam Ida dafa rot wala daf ko jox ñooñ noonu te tey ko daal something like that mu daw ñëwaat fi mobile am bi rotee laajte nit ñi nit ñi ne ko gisuñ ko nit ñi xam ko ko wax ne ko gis nañ ñooñ noonu góor ñooñ noonu nekkoon fii di ko for mu daw xut xut gisu góor ña ñooñ nag dañ dee ñëw toog ci genn ron mango mbala ñu toog ci benn bunt bitik mbala ñu toog fenn foo xam nit ñi dañ fa dee romb daal di gàpp nit ñi loolu lañ xewal Gàmbi yëpp ñu ngi fa fees del nit ñi nguur gi war nañ cee wax de te yéen ku xam mbokk Afrique kool leen ngir yàlla ngeen wax leen ne ku la koo xam ne xoona la di wax ak yow te xàmmeeku kanamam gi duur nit koo xam bul taxaw saka su nuruwul gambien bul wax ak moom bul taxaw romb koy wéy jarul ngay jaay xam kersa jarul ngay jaay rus ndax ñii dégg naa fa amee gàllaay yu ñu xamee ndax xaw ma suñ la liiyee daal doo dee xamati looy def story yu bëree bëree bëri laa dégg seen mbir su ma mag sax ma doon wax beneen story bu ñu def nit bu yàggul ñu nga fees dell Gàmbi nag fi mu ne dégg naa Sénégal it danaa dégg nit di ko wax waaye lii foog naa àdduna si waaj a jeex moo lii lum do lii lum do fi mu ne mobile kii kii mobile am nga xam ne fa liggéey liggéey bay waaja de dajale jënd ko iPhone 7 plus bi 15000 dem na nii mobile suma rakk bi 10000 dem na 6000 sorry dem na nii man sax man maa rus ba bugg dee ndax man maa ko yónni pour mu vidéo ma gune yile ma wutal leen sponsor ba tax xay wile di keesi démb ba tey ñu ngi wut mobile yile gisuñ leen ba fi ne nii police yi sax dem nañ police tey eh, report ma bàyyee dara suñ koolee ma bàyyee ba soonu kenn du xëyu lii nag laa bëgg ngeen wax seen mbokk yépp ne ne ku leen xoo Gambia wala mu di leen jéem a jox loxo wala mu di leen jéem a nuyu wala di leen jéem a laajte dara di kaya kaya nañ ko romb yu wuy kool leen seen mbokk yi wax leen leen ko lii laa bëgg a wax ci xolof ñaanal leen ma nag ma bàyyi feeñ man nag maa ngi nii di ko jéem wax si soose tuuti man man maa tiit te jommi mbaɗi manndin ko lafta ñin message le fola ñin vidéo le fola ko ñin moolu minu ye lon ko ni ye buloo diile la warante ni ni ite diya muta doron aka muta ko ite taa lon na min be keerin kota ke ibe min ke kan so ye la feŋol suña moolu ka minu fo ko ibe gambeya ni senegal moolu ko ibe ibe isiyata le gambeya saañ baake baake baake baake fan na kotoma ke wole fo ña kunun na kotoma ala diŋo ala keba din keba molie wala mobile le sunya anin te fango ndo mala mobile ntele nga woo kii pour ayta modo moo doo video mi yalon ko lafta wol sponsors ñini la wolle pour wolle school soto pour ila diningo from calls from africa ñing charity company nimmin ka do ko ke ñing organisation sai kabriŋa ki musu sabalem wol be ila diŋol man tara school pour ayeta wo musol be gada korda kiliŋ aye video kabiri wednesday lenga fai akonyiko friday inshallah mbetala kunu abota ate yakata just like alansaro mafungo or just after alansaro akata drong aye wol aye wol tambi just jani abi futa lañi korrato ñi musol be dami anyanta vinu vinu video la ini dingo dorong ay ay wo wo kewol tambi ibe siri kewol malon fo kefula len fo saba i don't know ma ñini kala ko I'm going to update you guys, you know, as the story go. Right now, today, they went to police. But because Alamobailo filita, mning ate bukadia munofa. Abe kumbo kampo kabirin kuno. Because it's not just Alamobailo. Ndoma Alamobailo fanam filita. Alamobailo ni iPhone 7 plus leo. Ayasan $15,000. So kabirin Alamobailo ta. Anala charger. Akata nyi musol video dro. Ayamobailo mutate. ako oye ayewol tambi wol yakkumande malon yakkumande yañini ka munna fo ye bulo diyala bam malon biko nga moyle ko ni ye bulo dile dron ite bukalo mbe kiri mañini ka wola nun kunu na hakkilo man wo manu kabirin naka diyamu aɗum aɓe kumbo kanno bari hani sa mon man diyamuno biko mo balo table but once i talk to her i will let you details just pour aliyafo allah baɗigole gambe ko i kana bulodi mola i kanani moman diyamo surtout momi yalon they look strange and they look like amanke gambiyanti sain kabiri woli hakkumandi doron ina diyamuta doron after that aka muta ana sondomo man tara ñola kotake ayo baylo jolonde kabiri aya jolondi doron woli ya tombo kabiri aya realize ko mo baylo jolonta aya tara futata korda ñinna a ñanta di mol film la damen aron aron batta kamo baylo ñini kamo ñini pour aya mo baylo kol kana kabere nata aya jolonde dami aman jam fafande aya tara amma mo baylo taraje aya wol ñini ka wol kay maje abmo am a borita atata suwo kono ayen do mala mo baylo ta aya lo ansa ngamira ko mol ya ansale at force so a borita le a akanna mo baylo jolonta dame ani woli nyoje ko take aya fo woli fo almanno baylo je wo kare ko hani so ako i don't know fo wo mo baylo jolonta len do mata wol wol dala ko take o wolle ya ta abulu aya di woli by mistake i don't know according to the story aya di woli by mistake o aya jolondi le ko take woli ya tombo akotake wol borita so kabre abolita mo baylo nyi jolonta dami ko so a kumbota a wurta a ɓurita wo mobile o a yamira aja jolondiɗamin aye silo silo be noma kotake ama mobile dow fanan je aye wo kewol ñinin ka musu dow kaye ko ga wo kewo jele a kañi mobile o tombo gamira talem ga wo kewol jele num inin minu kadi yamu jannum ako woyyani mobile o lem moli wo kewol ñini fof mulbatata mulman wo kewol je so ñin kewol please alal familol kol gambia alyafo ko ni wolye moji mi yalanko they look like either ikamuta like some torodo slash you know boro boro or something nying susu or something you know nying strange looking kewol ni ye wolje gambia kana dankuwol ye niwol yekkumandi kana dankuwol ye niwol kediya niwol kediyamunde ikela bagasol le suñaa Nying is very sad and beyond, and government have to do something about it. Nakotomako, they are too much in Gambia. Because Gambian, they are very nice. Ni jero ni ye kumandira ye ye ye naka ye kontondo ite ka ini wol ka diamu yena bulo dile la yena diamu no alal la badingol kol al yafuko isi fata ñinuma i kana bulo di mola i kana anything have to do with anyone ali douanier ñi ye ñim mobile ñing is is just beyond it's sad and painful adum nti i feel very bad because tere nga ki pour ay ñim musol video pour ngel ngel diningol sponsor soto ila diningol adu ñin jube do gambia kata ñaming kata ñaming sa dunya ko sakantuma africa it's actually very painful and embarrassing and just getting worse so lafta rek aliafo ko alla badingol ko hakilotu ñinula adun al si duwañe mobile ol yefunti mbal update la once i get hold of her and talk to her i will get exactly more details i will get to understand exactly how everything went through and i'm gonna update you guys okay thank you so much for watching and i'm gonna see you guys again next time inshallah bye